Khadija tey laa fi am comme invité ci Carrefour des Stars ma fas yéene waxtaan ak moom ci lu bari génn nañ ci milieu mannequinat bi dañuy dem feneen dugg feneen Khadija dafa am ci leneen lu may dugg mooy que hmm, ba ma la xamee ba tey dama daan gis ngay défilé yéeg ci affaire yi xam nga ci ci poñe mi gars yi di wax Khadija man sax danga ma daan jaral sax may paas dem géej waaye ci pojo bi naa ane xarit saa yëg na wala yëgu xaw ma yaa ngi dégg ma jékki-jékki rek gis la léegi nga xaw mel ni ku coupé lool ci loolu laa doon wax léegi léegi léegi nii nekkaat ci leneen dama ñëw fii fekk la nga nga teg ay fas nga ne ma da ngay war fas may gis ci journaux yi ngay ànd ak fas léegi dama <laughs> léegi man li ma bëgg a xam mooy que ne pour pourquoi hmm. nga wàññi millier mannequinat bi dugg ci fas yi Euh, je pense que ça rien à voir hein, parce mhm. que bi ma défilé ci ci voilà leen fréquenté ngi peut-être léegi laa jël décision wàññi bële pour nous concentrer concentré wu fi mhm. mais euh, dama dama bolé won ñaar yépp da nga ñaar yépp mhm. ok légui lan mo ci légui yow. ci face. Euh, face, à la base mon année affaire de famille hein, parce que tout le temps dama wax sama Ndioma Codou Bounama il est de Thiès je pense que ñi nek ci Fass yépp xam nañ ko. Moy ah, mooy Bounama Diop. ko du Bounama ah, Diop xam na ko. waaw kon kay yow ya wara a fas yow. Moy sama sama mam la. voilà donc euh, moom dafa amoon ay fas course xam nga temps xalé da na dem ci kër ga écurie bi ak kër gi ñoo tapalo won. donc j'ai des souvenirs assez vagues. Mhm. mais toog naa ba ben année ma commencé di dem course C'est seetaan course donc fa le virus bi gëna duggé. duggee. Mhm ma commencé di di fréquenter face course yi di dem ñag di dem seet sama di yi tamit nek fofu am ay écurie donc fa laa doon tout le temps su ma nekkee liggéey weekend bi ba vendredi samedi dimanche ma dem foofu toog. kañ nga commencé exactement ne yow da ngay fréquenter fas ah je pense depuis jour boobu c'est ah, sama première fois ma dem dans course boobu ba je. ban temps ban kii la ban année la woon. ban année c'est tout récent ah c'était en 2010. 2010 hein mhm ci en 2010. ok 2010 bataille. tey nga nekk ci fas yi noo gisee fas yi avancement am nga ci avancement wala boobu ba tey yaa ngi nga nekkoon. waaw parce que 2010 je pense tamit li ma gën a rapproché ci fas yi après mooy bi sama yaay gaañoo quoi donc je peux dire que fas yi moo nekkoon sama thérapie donc euh, ci laa commencé inscrire wu di war. Mhm. di war fas après may tëbal may tëbal fas yi. ok kon mën naa ne après ñu may ñu may ci benn fas boo yéeg sax xanaa mu xaw a sax tëb ñu xool sax ndax li nga mën ah ah waaw waaw nag xanaa da nga yéeg fas nag moom tey moom faw nga yéeg fas nag moom voilà léegi est-ce que yow mën nga participer ci course fas waaw ah, course fas Europe di nga gis jigéen ñuy war course mais Sénégal amagul réglementation bi permettre ko ko

Olaf. Olaf. <laughs> léegi dafa si kan moo leen di tuddee nii. si seen oh, tur yi ñoom ñooñu de dañuy ñëwaale wala buñ juddoo lañ leen jox tur. waaw parce que yi ay importé la. ñoom juddoo wuñ Sénégal. donc dañ leen di importé bu ñuy ñëw avion la ñuy jël wala bateau donc euh, dañuy am kayit comme carte d'identité. Mhm. ñu wax yay bi leen tur ak papa bi leen tur. donc kayit boobu en général dinañ ci def sen tour. léegi nag yow bu ñëwee bu la neexee nga changé ko def si sa tour bu la neex ok léegi ñoom lan la ñuy lekk. Euh, aliment la ñuy lekk ah. euh, aliment ak ngooñ. seen fas yi ñun suñu parce que yi moo ëpp poids. Mhm, ñoo gën a rëy moo mhm. gën lan par rapport ak yee wala yee la ñuy lekk yee la ñuy lekk la non pur sang la ñun suñu mhm. mais yii ay pur sang ok voilà donc euh, aliment la ñuy ak may nga jox mhm. dañuy luy ok yow sa séance d'entraînement fi chaque jour chaque samedi chaque dimanche matin soir. matin ah, man chaque jour. chaque jour Ah, chaque jour ngi war damay préparer compétition je pense dimanche Inshallah. yow fii dañu am moniteur mooy Pape Seck mooy euh, président club bi. mooy ki ma ki woon sànq wala du moom. non non accès gul. ok mhm. léegi moom moo lay wan ni ngay yéegee. waaw moo ñuy jàngal war. Mhm. moo ñuy jàngal moo ñuy tëbal ci baar yi. Mhm. moo ñuy nan la ak naka la. ok fas naka la ñuy xamee ne bu ñëwee ba ci baar bi dañ ko war a tëb. moom man loolu jaaxal na ma de da nga gis far bu ñëw ba ñu ne ko ñii ngay jaamu dem ba foofu daal di waaw parce que fas normalement bëggul tëb quoi.

rodé xam ni que bu ñëwee fi la wara jaar. ok est-ce que mën nga am blessure ci fas ci course yi soit nga daanu wala fas <laughs> dëgg la wala. waaw mës na tëbbal sama cheville bi ma. Hein? Hmm. loolu kañ la woon. ça c'était en 2013. léegi après yow noo dundé dundee. ñëwoo damay bàyyi dawal fas. non non au contraire au contraire parce que dama bëggoon war quoi donc euh, même bi ma dammee dama doon xalaat ni kat ñaata temps laay toog te du ma yéegaat fas quoi.

tey boo fekkante ne am nañ tey loo wax lan lay doon ci milieu mannequinat bi ak ci li nga nekk balaa ñuy tëj. waaw xanaa ñi may bëggee rek aw ma seen fay parce que nit moom amul ki ku dul ki ko bëgg bu dee ci milieu mannequinat bi y a des gens qui me euh, ma leen di gërëm ñoom ñëpp bu dee ci fas nag xam naa ni ci milieu bi ñi ma fi xam moo gën a bari. Mhm. donc euh, nit ci bëgg nañ ma ci bu baax am naa sax turandoo boo xamante ne Khadija la tudd moo raw grand prix chef de l'état daaw. Hmm. waaw fasu course la donc te jigéen la encore. Hmm. donc waaw ma koy wax gàcce ngaalaa moom moom tamit. ah loolu moom neex na moom. <laughs> donc ñi ma wër ci course bi tamit euh, man aw ma seen fay hein, parce que bu dul dara ñoom ñoo ma jàppale. ok mhm, ñoo ma jàppale ñu ngi may taxawu jooyu ma dara donc euh, aw ma seen fay daal. moom mhm. xam naa

maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam xam nga ñi ma bëgg niñ ma bëggee laa leen laa leen bëggee donc yëg naa leen ñoom ñëpp donc euh, di leen fa waa Europe ñu ngi lay xool de. man li ma métti mooy soo paree man la ñuy sonal naa ma jox ma numéro Khadija. <laughs> voilà Khadija Thiombane la woon tey ci émission Carrefour des Stars tey ñu amoon ko tey comme invité mu wax ñu lépp li nga xamante ne bii moo xew ci milieu kin ci milieu mannequinat bi ak leneen ci li mu nekk mooy ci millier fas bi léegi dama leen di joxaat dig daje beneen émission ak beneen star fii xewee ci Carrefour des Stars carrefour.com ak buzz.sn